asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd benn ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu la amin seen taaxirlu waral suñu farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen ko xam ne que njëriñ leen ci seen tudd ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indi gan goo xam ne que gëj ngeen ko gis lool tegtal ñu gëj ñu ko doon wër mu réer ñu ñu koy wër côté Burkina di ko wër côté di ko wër wër ci Europe bi di ko wër fune mu feeñe côté Mali nag ñu lijjandi ko ba indi ko kooko di kan Jama Kanté Jama Kanté borom jinne yi nga xam ne daan nañu invité lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg Jama Kanté feeñaat na ku ko doon wër waajaak nii gis naa ko numéro yaak nii ci écran bu baax a baax Jama Kanté looy nuyoog àdduna wërngal képp bi lay seetaan ci Tektal TV ñu gëj la gis trop mu yàgg lool nga ñëw nekkoon Mali euh, bàyyi Bakel. léeg-léeg ngay di ñëw léegi nga nekk fii ci Grand Yoff nga ñëw nga sol yére bu seer bu rafet boo xam ne que président bi sax yaa ko dàqale yére loolu néew ñi lay seetaan ci Tektal TV surtout waa diaspora bi. alhamdulilah euh, ñu sant yàlla subhaanahu wa euh, nuyu waa Tektal. Hmm, Tektal TV nuyu Tektal émission Tektal sa émission kontaan. Hmm. ngeen seet si ma tey. macha maa ngi nuyu. cosaan aada yi kilifa diine yi kilifa aada yi xam naa ne olof yi loolu mais. muy tane waaw léegi moom mi ngi mi ngi tane. donc alhamdulilah ñuy ñëpp. Hmm. yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. yàlla dimbale ñu yàlla jàppale ñu donc gën a ñu gisee. donc macha allah tey euh, ñu ngi Dakar alhamdulilah. alhamdulilah donc maa ngi leen nuyu tamit. yow Cheikh vraiment. maa ngi lay sant di la gërëm. donc euh, ay at at at at comme ni nga ko waxee. donc mi ngi noonu. donc alhamdulilah. te même numéro yi mooy dox. macha allah. macha allah jërëjëf Diama euh, Kanté euh, borom jinne yi euh, balaa ñuy sori na dañ leen di bindal numéro bu baax a baax ngeen bàyyi ko xel bu mu leen rëcc bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yu neexul. ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV ñu invité Diama Kanté borom jinne yi borom Bakel temps yi nag Dakar ak Mali Bakel day baaxante daal mais woo rek fu mu ci mën di nekk numéro am nag bu nekkul Sénégal whatsapp bi doo ko dox mais di nga ko jot whatsapp direct après yeneen yi ak ndawam dina ci feeñaale ngeen xàmmee ko bu baax a baax ndax liggéey bi benn la. dafa 77 664 77 664 08 09 77 664 08 09 beneen bi 77 022 84 60 77 022 84 60. beneen bi 78 315 53 15 78 315 53 15 numéro yëpp am na whatsapp nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla ma xam tëlewul dara te mën na lépp fi mu nekk ci Dakar nag nekkatul ay Pikine nag yooyu léegi mi ngi Grand Yoff euh, fi nga nekk ci Grand Yoff boo doon tegtal nit ba mu ñëwal boppam noo koy waxee. ci wetu marché bi rek boo ñëwee ci wetu marché bi bu dee ku jógee Liberté 6 bu rombee bi. voilà. Euh, premier mbedd deuxième. mu jàdd ba troisième kii mu jàdd. voilà ku jógee ci côté Patte d'Oie bu jàddee jubal ba sës rek. voilà bu hmm. ñëwee côté Patte d'Oie. Hmm. voilà boo ñëwee boo laajtee fu ñuy jaayee ginaar yi. waaw fu ñuy jaayee ginaar yi. waaw nga taxaw woote. woote incha allah ñu jël si la. Diama bu dee ku nekk bitim réew euh, ay bagages am GP dina ko yóbbul. GP Diachel. Hmm. voilà GPDHL incha allah. incha allah boo boo yónnee sa adresse. Hmm. donc lépp lu ñuy sakku lii ñu bindi adresse bi yëpp ñu jox ko GP am ñoo xamante ne GP moo leen gënal. waaw am ñoo xamante ne DHL moo leen gënal. waaw ku ne bu ko ci neex donc voilà ñaar yëpp am na ay GP am na ay DHL. Hmm. yàlla subhaanahu wa taala. macha allah jërëjëf Diama Kanté at yéen la gisul diggante bi da fee sàkku ji woon xam-xam da nga fee yokk xam-xam sa xam-xam dafa wàññeeku wala du Diama Kanté bi nga xamoon ak bii ban moo gën a aay alhamdulilah ñu sant yàlla subhanahu wa taala yàlla mooy njëkk yàlla mooy mujj. Mm-hmm. Euh, ñun famille suma wulu kante. Mm-hmm. donc ku xam wala ku dégg même ku gisul dégg nga histoire am. donc ñun ay borom xam-xam la ñu. Mm-hmm. lii moo suñu cosaan. résumé ñu histoire bi nu mu demee. sa moo suñu aada. mooy parce que ñun boo déggee suma wulu kante. waaw suma wulu kante borom jinne la. borom jinne la donc. yan la defoon. bon bari na jaloore yi bari na parce que. Hmm. buur la. du hmm. xamante buggul gis beneen buur. Hmm. buggul gis bu dëgg beneen tur. donc di jàppale ñu xamante ne képp ku nekk buur. nga nekk ci ci ci ci ci ci mande. donc moom. moom. nga ah. lay jàppale. nga lay jàppale. xam nga donc su ma wër donc bu ñu toogee tey. di wax jàllooram. non comme benn euh, jëf jëf ju rëy jum defoon rek wax ci benn. parce que moo moo moo jàpp Sunjata. ah moo jàpp Sunjata. oui jàpp Sunjata. ok xam nga. Mhm. donc Sunjata Keita. waaw parce que buur la. buur la mais Sunjata Keita. waaw papam. Mhm. Sunjata papam ak suñ ak Soumaoro Kanté. Mhm. ñoom la leen ànd. ñoom léegi Sunjata bu ñëwee. xam nga àdduna dafa am ñu njëkk sa wet. ñu la bëgg ak ñu la bañ ñu la bañ donc ñu la bëggul euh, euh, Sunjata mhm. ñoom dañu ñëw yow lii depuis sa temps papa lii da ko war a jàpp nga rey ko mhm. donc moom mu dëgg loolu loolu moo ko yàq affaire am mu yàq affaire am mhm. sinon Soumaïla Kanté doom Sunjata la ndeysaan parce que Soumaïla Kanté ak papa Sunjata Keita ñu mu doon temps boobu ñoom la fekkee Sunjata judduwul judduwul résumé mu ko tuuti li nga wax nii ci saraxule nga wax ci saraxule. saraxule. waaw du saraxule nga dégg. waaw waxal ban la. Euh, Sunjata Keita. ale hmm. ale ni Sumaworo Kante fa. Sumaworo Kante ani Sunjata. olu hmm. tile bɛnna. Hmm. mais Sunjata ale ni Sumaworo Kante tile ma bɛn. parce que Sumaworo Kante tile ani Sunjata fa olu de mais Sunjata fa tile tɛmɛna. Sunjata nana Sumaworo Kante nana mais mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ olu de bɛ ɲalen fɛ olu de bi tiɲalen fɛ hmm. donc dɔw nana ko munna e bɛ sɔn e bɛ Sumaworo Kante bila Mande e hmm. bɛ sɔn mun na donc masakɛ fila u man ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ kelen na hmm. aa ah, o de ye Sunjata fanga tiɲɛ donc nɔɔrɔ la. ok kon nuyu naa Fatou Konaté ak Moussa Konaté ca France ñoom waa Xaar Yàlla ak Ganda ak euh, Alima ak ñoom Khadija ba ci Mandaw waaw ñoom ñëpp nuyu nañ leen bu baax a baax ci li wax defe naa foofu mbokk yi foofu lay doon quoi Fatou Konaté France ak si sox xabar soda kon baax la jërëjëf kon ah euh, léegi da gën a daal hmm, ak kan ba ma sax am ko ma fàtte ci ñoom kan ok waaw moom moom day Typ Sénégal day waxtaan mi yeneen ondes sax. Euh, abonné leen Tektal TV bu baax ba suñu bés émission bu ñëw ngeen am ko. léegi kon daal xam-xam diggante bi ba ñu jàpp ne jàmmaakaatam 2024 2025 2026 muy gën a aay jàmmaakante yi weesu. macha allah. macha allah parce que ñu sant yàlla. bi nga réeré nag yaa ngi woon Mali kon. voilà donc maa ngi ci suñu cosaan yi. ci cosaan yi. maa ngi suñu parce que maama yi. Hmm. papa yi. Hmm. bon ñoom Mm-hmm. gaañu nañu faatu nañu. donc euh, man maa nekk seen ginnaaw. Mm-hmm. donc mënuma toog Sénégal. Mm-hmm. parce que xaaj bi. Sénégal xaaj bi Mali. lu tax ñu nekk ñu am ñu Sénégal. mooy papa yi. dañ leen woo pour ñëw liggéey. déplacer leen ñu ñëw liggéeyal ñuy dem. ñuy dem yàlla def ñu ñoom am na suñu benn papa bu toog Bakel. Mhm. donc loolu moom foo loolu moom moo indi foofu. Mhm. mais instant yi mënuma toog Bakel. mënuma toog parce que donc kilifa yëpp faat nañu. kilifa yëpp ah, kenn kenn nag fa. donc man maa nekk ci cosaan yi. man maa mhm. nekk ci aada man maa nekk foofu. depuis sama taalibe papa yi donc. donc kenn nag fa. donc man maa nekk ci sajaada bi. donc alhamdulilah. donc maa sant yàlla. nga xamante ne. Euh, bàyyi nañu. yokk na am ñoo xamante ne comme comme ni ma olof yi leerul mais dinaa expliquer ñoo xamante ne mun nañu hmm. comprendre. mën na comprendre. parce que am na bagage yoo xamante ne ñun suñu cosaan ak suñu aada dafa am bagage yoo xamante ne. Hmm. donc chaque année. dafa am li ngay jël. jël chaque année dafa am li ngay jël. Hmm. parce que euh, sa at dafa am yoo xamante sa at bu ëggal foofu. yenn bagage yoo xamante ne mënoo ko jël. donc alhamdulilah loolu moo tax donc. ay at at at at at donc réer nañu. donc. alhamdulilah maa ngi nekkoon ci. mal hmm. yi Mali yi ci bagages yi. nga nekkoon ci Mali. dugal ci Bamako Mandé. Hmm. voilà yokk xam-xam beeg yëpp alhamdulilah loolu mais Mali bi sax dina jëm mais Jama Kanté. Hmm. Jama Kanté da am loo wax lu doy waar. loo xam ne wax nga ba ko ci suuf. te loolu buñ ko indee ci kaw dina xaaj ni ñi ñaar. ñi dina la gëm ñi duñ la ñi la gëm nga fexe jox leen ndam. ñi la gëmul mhm. nga fexe teg leen gàcca mhm. ban gëm la mhm. da nga ne dangaa yor ñaan goo xam ne que ku bëgg alal da koy am léegi jale ko ñetti fan bu àggee quarante et jours dina téye huit milliards Macky Sall sax ba mu def déclaration patrimoine huit milliards la amoon kon ku tëb am huit milliards ci diggante bu gaaw quarante et jours moom balaa kii nga romb ko ci am xaalis moom léegi nag loolu lañ bëgg nga ñëwal ñaan boobu nu demee yokku leen télé bi déglu ko bu baax Diama Kanté moo ko wax mi ngi nii am na ñu lay gëm am na ñu la dul gëm ñaan gi nu muy demee ñaanu ko bëgg alal. bon alhamdulilah da amul benn danger nag wax la alhamdulilah sant yàlla seex. waaw man lépp lu may def. Mhm. damay sóoraale ëllëg. muy sóoraale ëllëg. ci yàlla parce que boo dundee téeméeri at. Mhm. mujj bi dee la. Mhm. doo ànd yaay ci bammel. doo ànd ci xarit. doo ànd jabar. sa jabar noo ko bëgg bëgg bëgg doo ànd ak moom ci bàmmeel hmm. sa jabar lu mu la bëgg bëgg bëgg doo ànd ak ci moom bàmmeel hmm. donc yow kese hmm. ak say jëfin ak say jëf nga fay lëndëm la nekk jàng la képp ku lekk dërëm jàmbur may la ko dafa la jox sama aaju mu faju Mm. kon aaju boo fajul da nga ko war a delloo nga xam ne ne lii yàlla moo ko dogal. Mm. kon boo ko lekkee may la ko boo fay la aduna waaye am naa doole du ma ko fay wala am naa doole jiw mënu ma ci dara mais yalla yàlla mën na ci dara. yàlla du yàkkamti yàlla mi ngi gis lépp mm. du yàkkamti donc mm-hmm. nga jël dërëm jàmbur suxalam fajul. Mm-hmm. da nga ko war a delloo loolu yëpp dama koy waxtaanee sama sama sama. Euh, mboq maara yi. da koy dellu ah, ah. donc soo mbokk maara yi. ah da nga koy def yow kon. si. Mm-hmm. non soxlaam fajul mu ngi dellu xaalis mais looy lekk xamante ne moom ko parce que moom mayu la parce que moom ñëwul fekk si la maye la. Mm-hmm. parce que dafa ñëw pour adam faju mm-hmm. donc mais li ma jaaxal hôpital ku faju tanewoo duñ la delloo sa xaalis. mais hôpital ak sunu aada ak sunu diine. est-ce que du benn la. Modou hmm. benn. non non man d'accord naa leen bu dee da ngeen waxante wér bu wérul nga delloo ko xaalisam. waaw bu dee da ngeen waxante mu bu ko amul nga delloo bu dee da soxla bii bu dee dafa bëgg tukki mu tukki bu wérul nga delloo bu bu ci jotul nga alal léegi nag bu dee nag deen koo teg garantie boobu hmm. d'accord naa. Hmm. mais bu dee nag da ngay ñaan yàlla rek moom bëgguma nit ki jël engagement bu diis boobu. non Cheikh. xam nga ci àdduna bi ñu nekk nii. yow mii balaa ma lay laal. kon dinaa xam yow man mun na la faj. ah kenn nga xool ba xam mën nga. non ah, bu dëgëree nit bul jël nit xamante ne yow mënoo ko faj. Mhm. kon nag war na la loolu moo tax nit ki képp ku ñëw. Mhm. balaa ma lay laaj balaa ñuy waxtaan d' abord balaa waxtaan bi sori il faut ma seetal la d' abord. seet ba pare. que yow. sa aaju ci man la war a faju si am dégg donc dañ ci ñëwaat loolu. Mhm. donc mbirum alal bi tamit. waaw man man soxla ma. dërëm jaambur soxlawul dërëm jaambur parce que ku lekk dërëm jaambur boo fay la àdduna àllaaxira da nga koy fay man ne yàlla rek laa gom ci àdduna mm-hmm. man samay jinne yi ak mm-hmm. samay rawaane yi mm-hmm. yàlla moo yàlla moo ñu bindi moo leen bindi lépp lu ñu mën a def il faut yàlla nangu ko parce que man daal lenn moo ma neex ci dama jël say numéro gis ne numéro yi ma la doon invité lu ma dix ans ci ginnaaw mm. même numéro yi nga yor loolu daf may neex ci nit toog na réeroon nga ma nag xamatuma fu ma lay jotee daa nga tuxu boobu moom tuxu comprendre na ko nga dëkk fii Pikine ëllëg nga nekkaat fee loolu mais du sore quoi parce que boo demee Bakel ñëw fi nga nekkoon nga bàyyi ko ñëwaat xel nangu na ko quoi mais li nga wax nii dafa gën a dalal sama xel ne kuy faj koo gisul da nga koy delloo xaalisam te looy dugg da ci am ndam loolu moom bëgg naa sëñ bu jël garantie yooyu mais mais c'est ça xam nga nit yow boo demee hôpital mm-hmm. boo demee hôpital mm-hmm. nga egg ci bureau médecin bi mm-hmm. ne ko sama bopp mooy metti donc médecin bi. dëgg na la. waaw il faut mu def consulter. waaw lan mooy indi. problème bi problème bi. fan la jógee. fan bi xam. Mm. donc médecin bi du ñëw bind la ordonnance sans mm. condition. Mm. donc sëriñ ak euh, médecin euh, médecin. ak traditionnel. toutes la ñuy wute. la. donc nit bu ñëwee ci sëriñ wax la woo expliqué bi ay mbiram yow tey nga woo ma nga ne ko man problème lii la am problème lii la am dëgg naa la de. mais loolu duma ko basé. doo ci basé il faut mu seet. il faut mu si xaar hmm. donc mu xam kii war naa ko faj. kii war na ko faj. Hmm. kon bu la wooree kii war ma ko faj. Hmm. dama lay wax fi nga war a jëm. fi nga war a jëm moo tegtal la. si yaa may dëgg waaw donc su fekkee mun na la faj dama lay wax. mën naa su fekkee million la loolu ngay indi su fekkee milliard la. loolu ngay indi boo indul donc du mu la laal. Hmm, exemple bi day ndur na seer leen moom. non. Ah. Hmm. man. mais am nga yërmande daal non mais man xam nga seex. Ah. comme lu ma expliqué. man dama bëgg a ñëw wax wax ba pare. man milliards yi moo nu ñor quoi ba pare. voilà donc ah. man. Hmm. Euh, rek laa gëm. ku dul yàlla. bokkuma ci dama am yërmande. yor yërmande dafa am tey ji yàlla nee na bul dem jël yërmande yërmande booy yow nga teg la yow sa bopp nattu. di yow question bi yaa ngi wiiri bi ma la laaj milliards yi laa soxla. nga kii ko foofu laay ñëw milliards yi maanaam tey xaaral ma waxaat ko ngeen dégg abonné leen TV. Diama Kanté mii toog borom jinne yi nee na yor na ñaan goo xam ne que ku bëgg milliard dale ko ci ñetti fan mën na nekk mais boo amee 41 jours. di nga téye huit milliards loolu waxal ko sa ñu dégg. waaw wax ko parce que euh, man maa ko jottali parce que ba léegi waxu googu waaw waxal. man waaw. képp xamante ne. waaw. yaa ngi bugg alal. bëgg alal du ma sacrifier kenn. doo kenn. du mu rey kenn. doo rey kenn. du ma saraxe kenn. doo naa kenn. dinaa la da liggéeyal alal. trois jours la ci biir trois jours. ci biir trois jours yi. nga gis résultat. nga gis résultat commencé gis sa alal. boo 41 jours. Mhm. nga am 8 milliards. 8 milliards. 8 dafa am condition. condition bi ni mu demee. bala ñuy tàmbali. waaw. da nga may garantie. Mhm. parce que alal bi. Mhm. boo ko amee. waaw balaa nga ci lekk. balaa nga ci jënd say oto. balaa nga ciy jënd say kër. balaa ngay ubbi say projet. donc ñetti jàkk. ñetti jàkk da koy tabax. barke rasul lay. billaay wallaay. ñetti jàkka. ñetti jàkk da nga koy tabax wala ñetti jumaa sax waaw. Oh, hmm. may dégg. ñetti jàkk nga tabax hmm. nga bàyyi ci xel ci daara yi. daara yi nga bàyyi ci xel ñoo xamante ne amuñu doole. Ah, lii ci garante bi la bokk. ci bi la bokk. Hmm. boo deful loolu alal bi boo ci jotee. boo ci balaa ngay jël ma waxaat balaa ngay jël jënd ubbi sa projet wala jënd sa immobile jël sa oto. xaalis jàkk yi ngay jël. xaalis daara yi ngay jël. Mm-hmm. xaalis néew doole yi ngay jël. Mm-hmm. jox leen. jox boo deful loolu. Mm-hmm. alal bi boo ko amee. même boo jëndee ay ay kër lu jeex. ubbi projet lu jeex yëpp day tasaaru day dem dem dem dem ba nga yalwaan. ba nga yalwaan ni. <laughs> billahi wallahi tallahi. mais léegi wax lu leer. lu leer lu leer garanti kay leer. comprendre nga. parce que lii. ji rawaane li may yor. Mm-hmm. jullit lañu. Mm-hmm. dañuy ñëw pour jàppale. Mm-hmm. lislaam yi. l'islam xam nga xam nga tey ji yow nga ñëw nga fekkee am na ku tabax jàkk. xamoo kan moo ko tabax. jinne yi mën nañu ko tabax mais non ñoom jinne yi dañuy ñëw loo gis àdduna sababu la. donc dañuy uti xamante ne pour jàppale doomu aadama yi. ñu xamante ne jinne jullit lañu. l'islam lañu. yaa ngi may dégg. dina baax voilà donc dina yu baax ñooy joxe ci alal boobu. donc balaa ñuy joxe ci condition. ah. Ousseynou li kon yéen a de léegi tekki jot de. yaa ngi may dégg Ndiaye say na donc ci alal boobu donc charge bu ñuy def. Mm-hmm. sarax yi première première. Euh, ah sarax yi baal ci da ngaa dem ba euh, onze millions ba douze millions. ou bien ah. treize millions. ah bon sarax yi. sarax yi kese mais loolu moom man maa lay. mais bu weesoo foofu lay yem. foofu lay yem. man maa lay man man maa lay garanti liggéey bi trois jours la. ba doo fi nekk naan ko cuuraay bi lay jëndaat. non lay defaat bu xasee def rek jeex loo gis loo loo gis dafa am lu ngi war a def. mais léegi loolu ay càngat la wala lan la lu muy sango wala yaay toog defal ko sa bopp. bon salax yi. waaw. ñeenti nag bu ñuul. bokk na ci. ñeenti nag bu weex. bokk na ci waaw. ñeenti nag bu xonq. bokk na ci. xar yi tamit ñeenti ñeenti la. ñeenti ñeenti la. Mhm. béy yi ñeenti la. ñeenti ñeenti la. quatre-vingt-dix grammes or. quatre-vingt-dix grammes or. Mhm. parfum saybul jin. parfum saybul jin. ak cuuraay wirdu bi. ak cuuraay wirdu bi donc nag yi yëpp. yooyu yëpp day dem ci l'islam. ci l'islam. dañ koy saraka ci lépp loo xamante dañ koy def. Mhm. ci yoon l'islam. mais li nga wax ni waragul mat six millions de. non ëpp na. li nga lim ni ah, am or bee ko tax. ëpp na. ëpp na fex. Ah, lii moom ñaanu ponkal la kon. non c'est-à-dire xaalis mooy liggéey xaalis seex. dinaa wax leen. Mhm. nekk ci adduna mhm. di liggéey doole. Mhm. da ngay dee doo am. <laughs> waaw billaay wallaay. <laughs> da ngay mën nga am rek après du dépassé te nga am vingt mille après tey après nga am cent mille franc. nga toog ñaari weer doo am cent mille franc. pour nga gis ñu ne la kër gee mosoon bee ko moom yomb. comprendre mais xaalis mooy liggéey mais loo gis yoo xamante ne am nañu milliards am nañu lépp. dafa am fu ñu jaar. mais liggéey kese soo fekkee liggéey kese kese kese kese nga jóg depuis six heures du matin sept heures du matin <laughs> xam nga. Euh. ay non ay minaane yi. Euh. xam nga fekkee ñoom ñooy dàq alal. non man kay démb rek maa liggéey rek. non mais boo xoolee tubaab yi ñu yor ñu yor saak. Euh. ah wàcce camion yi saak. <laughs> su fekkee liggéey doole la <laughs> mais no non alal du liggéey doole. du liggéey doole liggéey la déet gisoo da ngay dégg daan président bi liggéey na lay def du ñàkk. ci ah. bi lay toog. non mais c'est ça liggéey lu métti li moom saa donc mi ngi noonu. Eh. donc loolu moo tax nit ki. Eh. xaalis mooy indi xaalis. ma loolu moo aussi. Eh. xam nga bu waxee da ngay liggéey alal. Mm-hmm. donc xaalis mooy indi xaalis. Mm-hmm. bëgguma aussi ñu xamante ne bala pour nga liggéey si alal boobu. Mm. il faut nga am fond. il faut nga am fond xam naa li nga wax. xam nga fu nga am fond. Mm. mais yoroo ma dara dara dara dara. yoroo ma dara pare ne bëgg naa ci huit milliards yi. <laughs> mais mais c'est ça. c'est ça tey di entreprise. Mm-hmm. wala nga yor sa liggéey ak mm-hmm. am nga tuuti. Mm-hmm. tey ji da nga war a am da nga war a da bind benn projet. donc projet boobu. dafa ñëw trente million wala dafa ñëw ay quinze million yow amoo xaalis. yow vingt yow cinq million nga am wala six millions nga am. donc simili googu. il faut nga jëlaat. nga nga nga nga liggéey ci. pour nga mën a am treize millions wala pour nga mën am vingt millions pour nga réaliser sa projet. mais li ma jaaxal ci li nga wax ci milliards yi nii li ma jaaxal. Mhm. Euh, ku yoroon oto bu jar quinze millions boo yoroon dix millions di ko jënd kenn du la jaay. Mhm. te dix millions baax na. Mhm. yow da ngaa baax nii rek ba yéene nit ñi nga xam lu tolloog onze millions douze nga def leen milliardaire. Euh, ba wala li muy def ci jàkka yi moo la ci neex ba nga koy def. wala parce que. wala baax la rek na non. yow defal nga ko say mbokk wala. yàlla defal nga ko say mbokk. sama mbokk. waaw balaa may wax sama mbokk nga naan da nga jël exemple sama bopp. sa bopp waaw may may cinquante millions di am problème génneel. comprendre cinquante millions may ma ko. c' est vrai ma milliard indi cinquante millions avant. dinaa la jox lu ëpp loolu. gis nga gis nga ah. gis nga gis nga nit. Mm-hmm. balaa ngay jël exemple keneen. Mm-hmm. jël exemple sa bopp. man daal gis naa bi ma fi tudd. fan yi bébé Mouhamed Diop ñu ngi koy ñaanal ñaanal soxna si mu gudd fan ak wér ak ñëpp ak màggam ak kii rakkam gis nañ ne moom gis nga bett nga ma ak xewul am solo daal boo am eh, ànd ak tàlli di jégalu ci yeex ñàkk ñëw béeg yooyu ndax jaawale bis yi moom booba ko joxee di wàcc moom nga ko ah Cheikh Cheikh xam nga ah. cinquante millions bu la neexee boo deful nga def ma am milliards yi waaw test bi doon ci man non xam nga cinquante ñetti fan moom dafa yomb li xam nga cinquante hmm. boo ko déggee lu rëy la mais du xaalis. du xaalis. xam nga. Mm-hmm. daal bu rafet daal daal bu cher. waaw yére bu cher. Mm-hmm. xam nga oto bu cher. waaw oto bu cher oto bu baax sax cinquante millions doo am. xam naa ne waaye yow man kay dem naa boutique ñoom. comprendre nañ si Maxtaar mais tur bi. Euh, boo ko déggee cent millions mu tax. gis nga gis nga seex. waaw man. mais léegi laa foofu laa maa ngi nekk ci ñëpp. Mm-hmm. damaa yor xam. damaa ñëw pour dimbale doomu aadama yi. Mm-hmm. Cheikh waaw. li ñuy yor rawaan yi ma yor. Mm-hmm. rawaan l'islam la ñu. rawaan l'islam donc man. Mm-hmm. amul benn conséquence. parce que dafa am lu xamante ne. léegi dafa am lu ma la bëgg a wax. Diama Kanté borom jinne yi. lii nga wax ni ñaan huit milliards yi nii Sénégalais yi ñuy seetaan dix huit millions la. xam naa boo xaajee ci digg bi. benn xaaj bi buñ la gëmee beneen xaaj bi gëmuñu la. ñi la gëmul nag tem ñu bàkkaaru kii am na fit de. Mhm. ki demee na nii de te damay ragal tamit nit góor góorgóorlu ba joxe ay douze millions treize mhm. ay plainte di ci mujj naan gisuma lii la ma waxoon sacrifié woon ak mhm. yooyu léegi kaamil la day bu day jar waat nga ko ubbil ba nga xam ne kaamil la jaamaa carte fiis di jaabul kon da koy waat dégg ngeen yokk ngeen télé bi jamaa kante nee na yor na ñaanu huit milliards ci ñetti fan gën gaa gudd 41 jours man nag bu dee 41 jours sax mën naa ko dollil ba 6 mois bu ko neexee. mais sarax yi diis na àgg na ba ay. waaw million millions ba 11 côté yooyu. pour global bi. boobu boo ko defee nag amul ma jëndaat cuuraay bi amul ma defaat lii amul or bi dañ cee jiw lépp dañ la jox xaalis bi yow yaay def li ci des. Mhm. léegi waatal nag dafa nar a waat. seex waaw te nee na nag bàmmeel nit doo nga fay des moom kese. du ànd ak jabaram doo ànd ak doom yàlla moom moo gënal. yow ak hmm. ñi ñi ñi seetaan. waaw parce naa ne. Hmm. lu mu neex neex du ma ànd ak yow ci bàmmeel. Hmm. parce que salaatul fatiha billahi wallahi tallahi wala kitaabi. képp ku ñëw. lu war a lu ñu a liggéey nga compter ba mu mot chaque trois jours ba quarante et un jours nga am huit milliards. déet la fii nag laalu kaamil bi da nga yëkkati kaamil bi téye wax. comprendre nga kaamil bi da bàyyi ma ëcc waaw yëkkati wax tëj ko waaw nga ne man Jama Kanté man maa wax ni waaw mu leer assurance bi gis nga seex kaamil la waaw kaamil ba da ngay teg lu bon lu bopp lu bon sa bopp nag maanaam li bu dee li may wax amul ma ne waaw billaahi wallahi tallaahi waaw képp ku ñëw ci ñaanu milliard gi ñaanu milliard gii li mu la wax salax yi yëpp nga motte ko nga motte ko boo ko amul boo ko amul billaahi kaamil bi ni lépp lu mu dugg nga yàqu lépp loo dugg mu yàqu mu yàqu yàlla yàlla bu boo jariñoo xaalis bi yàlla boo jariñoo dara. ku ci bëgg nag li ma la wax boo ko deful. yàlla na la lu ma doon yàlla ne la nga jeexal takk-takk ba nga yalwaane. ba nga yalwaane jeex na ko. comprendre non seex bi moom warul àgg fii man seex lu ma moo am. Mhm, jeex na tegal kaamil comme. yaa ngi mhm. donc mi ngi noonu. kon di gis ngeen léegi nag moom moo wax. la man nag li ma bëgg a xam mooy ku jot milliard. ah boo demee def lu baax naa ci kontaan. mais léegi milliards yi nit ki bu xasee def ba pare day jékki-jékki seen buntu kër garab ngay taw xaalis wala day jékki-jékki ubbi armoire mu fees liggéey bay dox wala waa Al Nassr koy jékki-jékki signal ko contrat ne ko fan la xaalis bi nan lay jaare ci liggéeyam lay jaare dox wala waaw bu ñu képp ku ñëw loolu mm-hmm. boo agsi waaw ñu dugg ci loolu alal bi ni koy jotee ak lu muy ñëwee am na ñoo xam ne bitim réew la nekk mënuñu ñëw moom képp foo nekk ci aduna mm-hmm. foo nekk ci àdduna waaw foo nekk àdduna mm-hmm. da lay fekk mais alalu jinne la wala. xam nga. Mhm. am na benn benn preuve. benn preuve am naa fi ci image ku nekk Amérique. ku nekk Amérique mu liggéeye ko. waaw. war na mun naa la mun naa la woon. Mhm. yow nga dal ko nga nga gis ko moom. Mhm. mu liggéey ko musuñu gissante ba léegi. ba gisante ba léegi. musuñu gisante. yor na ay yor na ay xaalis bi dafa ñëw fekk si ko. mais li ma jaaxal fi nga dëkk ci Grand Yoff Grand Yoff nii. mbedd yi dese woon naa rafet quoi carrément. léegi kon munoo yëkkati kër gi étage wala lu tax. parce que du ma man du toog fii. Ah, ok man du ma toog fii. Hmm. man fii du toog fii. Hmm. bon euh, sama rakk moo fi nekk yoo xam nga man damay jaabante. Hmm. aussi du ma jóg xanaa déplacement. même ku bëgg liggéey alal bi. boobu naa ah bëgg ñu déplacé wu nga ñëw. voilà foofu naa ci ñëw man damaa bëgg bi milliards yi kii lii def gaa yaa ngi yokk télé bu baax di ko parce que fi mu nekk nii nag instant bi hmm. dëkk bi ni mu dëgëree nga a defi nit milliardaire yow lii état moo tax suñu état yi liggéeyun mel nii li mu wax lii. Hmm. kii li nga war a def mooy leen indil ko benn deux mille personnes fayal leen seen i onze millions sawaay buñ paree ku ne yori milliard ku ne dem ubbi société léegi boobaa ndaw ndaw ñu dinañ liggéey Ah, hmm? yow dèjà bu ndaw ñi liggéeyee ba pare l'islam bi dox ah imagine mille personnes état bi fayal leen hmm. mille personnes ku ne douze millions gën ngaa parce que bu dee onze rek neel douze wala treize hmm. ci gàttal loolu buñ la ko joxee du mat cent millions wala du mat trois cent millions léegi trois cent ah waaw léegi loolu nga ñëw dajale ko nga jël état bi jox la quelques personnes ñooñu nga def leen milliardaire muy indiwaat quelques personnes ngay def leen milliardaire liggéey kon ñun léegi ñu léegi ñu romb ñoom Dubaay sax waaw mais xam nga xool ñoo bokkul hmm. Cheikh boo amee yow yoro yow yoroo dara hmm. mais sa xol dafa rafet loo am rek bokk sax say mbokk la muy borom barke naan mu yoroo dara ne di nga yor dara waxal di nga yor dara <laughs> waxal di nga yor dara yoroo dara dafa wóorul de waxal ko ne milliards yi di nga am waxal da ngay am milliard mais xam nga rek law tabarkel waaw waxtaan lañ nekk waaw dama lay expliquer man moom boo amee damay joxe moom voilà xam nga mais tey yow am ñoo xamante ne ta am nañ hmm. am nañu de. Ah. mais pour ñu dimbale problème la. dafa am ñu soxor. Mhm. xam nga. Mhm. pour que yàlla may na la. lu mhm. sa doole. yàlla soxorul. ndeysaan nit moo soxla. xam nga parce que ñuy wax yàlla yor na lépp yàlla yorul lépp. yàlla yorul lépp. xam nga. waaw donc mi ngi noonu.